histoire bi ni mu demee nag mais comme si côté boobu laa lay wax rek bañ ma sosalee foofu moom yaayu maamu xale bi daane commissaire bi bu ma ko woowati li ma la wax ne de la ne ma bàyyi doomam bàyyi seen kër ñett yooyu dama koy nangul mais trois quatrième bi muy sama doom mënta nekk sama doom la wax fa dëgg yàlla léegi nag aw ma si lu dul loolu noonu interdit lépp ma xam ne yoon amaat na. ma laaj ko moom nu may tegee si yoon ba mu yóbbu ma tribunalu Dakar fu ñuy wax kii garage la Dior dem naa fa xaw ma fa kenn mais boo àndeex yàlla jarul tiit jarul ragal ndax bu loolu bu fekkoon dëgg la polisu Tëngéej bi lañ may denc yóbbu ma rëbës waaye da dul dëgg nag moo tax nag mu demee noonu bi ma demee foofu nag ma explique leen affaire yi ni mu demee ñoom it ñu may teg ci code di ma teg si code ba tribunal commencé di àtte. ba ñu defal leen convocation lu toll si quatre fois ñëwuñu parce que yoon la te nga ne yow da demoon si yoon loolu yoon la moo ma jaaxal di koo ci woo doo ko jot man la jox dëgg ndax dafa ma laaj ba xam da ngay xëccoo xale bi pour jël ma nekk déedéet tribunal ma nekk déedéet man nañ ma ko fa bàyyil rek yombalal ma saa bu ma ko nammee looloo taxoon ma sonnoon ci kayiti de loolu kese mais xëccoo ma jarul xëccoo. nu ñu mënti doxalee bu yàlla defee mu màgg xàmmee ràññee dina découvrir baayam fi mu nekk mu ñëw seet si ko. waaw xale bi nag ni mu génnee àdduna mooy li ma la wax rek tere nañ ma ko tere ma koo gëj a gis féewale maax ba dem mayee ko mu dem sëyi waaw pikin waaw xëccoo yooyu noonu mu doon def nag ngir àkki moo tu tànk ba mu ko leeree ne day sëyi ji waroon na ma mën a jox tu tànk bi ñàkkuma ku ma ko dénk wala man ñàkkuma nu ma ko mën a yoree ak lu mu mënti doon. mais jël na ko si liñ ma expliqué man lii laa si am lii laa si am dañ ma ne da ko jël dénkaane ko moom moom ma ko xamal boppam sax si benn vocal bu ma doon laaj xaalis pour ma envoyé ko ko ba ma déggee mu ne ma envoyé ma 3000 ma envoyé ko ami mu mag mooy ki ma tuddee xale bi foofu rek laa découragé ndax bu ba mën a engagé sëy ji na ànd xale bi moom bu ko yoree garaawul mais dénkaane la sa yaay mën ak saggante gi siy am du dal yaay yaa ngi dégg léegi nag aw ma si lu dul sa doom lakk na ñu ngi ma ko wax lëndi bi ma ko waxee lëndi presque mooy bi Sénégal fu baleex euh, Gambie presque ay vingt deux heures vingt trois heures yooyu noonu heure boobu mënumaa dem fenn ma nekk léegi bàyyil ba suba bu subaa dinaa fa ñëw léegi ma bàyyi ba suba am lu ma lijjanti woon xaw a yéexee yàlla def mu xaw a jàppandi sama benn mbokku taalibe bu ñuy wax Dembis moom xam na ko bu baax ndax ñu ngi daan déggante ba kooku sax daan ko dooleel xéewal weef bi mu wut man maa ko ko wutloo ngir yombalal ko yërmande rek donte féewale ne ñu de barki Serigne Touba an sama téléphone déedéet mooy li ma la wax rek mooy lundi boobu ma la wax ne si lañ ma ko wax ndax dama programmé woon ñu gisante si dimanche boobu lundi bi di loolu di xew fekk euh, dimanche bu njëkk bi lañ njëkkoon programmé ba ma nekk boo fa ñëwee nga yëgal ma comme da ngaa sëy moom amatuma maanaam lu may wax ak yow si lu bari si tout temps bi laa war a debaax yow léegi mu ne ma dimanche su ma fa ñëwee dinaa la woo ñu daje fa mu ñëw fa sama ginnaaw envoyé ma vocal ma dégg baatu xale bi ma ne ko waaye yow dafa mel ni yaa ngi foofu de mu ne ma waa dama fi jaaroon rek mais baal ba dimanche bii nii mooy dimance bi nga xamante ne nii moo jot si ëllëg si ñu xamal ma ne ma daa lakk dimanche boobu noonu yàlla def déggantewuñu si ow ma ow ma ko. lundi bi moom ma lay wax noonu si la ma woo maa sama yaay jee ñoo taxawoon di déglu waaw ay wayu Sonko sama sama kële uffeur bi noonu rek tuuti appel bi ñëw yor ma crédit ma dem jënd crédit woo ko ba ma ko woo mu xamal ma ne sa doom lakk na bi ma waxee loolu tamit mooy li ma la expliqué ndax xaw na guddi ma ne léegi baal ma baay ba suba am lu yàlla def sutura ma yor ko bëgg fa dem woo ko nekk fan ngeen nekk mu ne ma ñi ngi principal sama xel ne yar ne maa fa njëkkee est que du kon maanaam la ma fa bàyyi moom la may mottalil moo xam dina dund wala moo xam daa dee mais mu dundoon rek laa bëggoon amoon naa yaakaar si moom trop te dara gënumaa may cant lu dul lafañ gi doon wax ak xeebeel gi moo tax doom juddu fa yàlla bëggul loolu bëggu ko de te soo koy wax mu lay mere da ngay jékki saa gis lu lay dal nga ne dafa am lu ñu ma def fekk kenn defu la dara yaa ko def sa bopp. waaw mooy li ma la wax nee na daf ma woo ne ma xale bi lakk na. ma wax ma laaj ko loolu nu mu mën a demee noonu mu ne ma magam la ko dénkoon si liñ ma expliqué rek man loolu laa xaw a jàpp ñu ne mag ji da doon tàngal ndox si buntu saal bi xale yi nekk fa di bëri léegi nag sama doom moo si loru lii laa si am yaay ji envoyé ma photo ba tey ne ma xoolal mi ngi nii lii ko dal vocalu ma wax ma si dara bañ naka ba benn xaritam bu dëggu ndax dëgg nu ne lay feeñee confirmation yaa ngi ne sama téléphone soo ko déglu woon du ma du ma wax du ma wax de loolu rek mën na maa waxal ndax benn xaritam la doon waxtaanal ba di ko xamal lii si am yépp ba mu nekk man bu ma ko yëg si lakk gi si lakk gi ndax man nee naa la lundi boobu la ma si xamal ne ma lakkanal na mardi bi ma bëgg dem xamal ko ko sax ne maa ngi nii di ñëw mu ne ma jarul ngay ñëw génn nañ hôpital lakka bi garaawul mardi ba xolal ba àjjuma ñu woo ma ne ma sa doom dee na lii laa si am. waaye gisuma ko si bi may dund xaw ma fan la lakk léegi xaritam boobu moo ma envoyé photo bi dama ko gis rek sànni sama téléphone te moom nee na ma lakk bi garaawul ma nekk ko maa ngi fay ñëw mu ne ma jaru ko génn nañ ma ne ko fexeel ba bu ma naa fexe ñëw Liberté 5 rek nga génneel ma xale bi mu ne ma yàq suñu waa kër jubóobu leen bu fi ñëw benn toogal ba ñu am solution dinaa la woo bu la neexee ma envoyé la lépp nga dégg. parce que sëñ Bamba lii daal laa gis ne moo lakkul benn côté bii mais lii lépp. doo ma jox téléphone bi ma wan ko. waaw kon nice noonu la demee maanaam lii lii daal laa gis ne ba dalee lii moo ñorul mais lépp ñor boo ko xoolee yow da ngay jullit di nga tuur xéewal barki Serigne Touba mais nu mënti demee rek man lañ waroon mën a njëkk a teel a ba lii xew di xew. mais aw ma si lu dul sa doom lakk na sa doom dee na may ñëw doo doo fa ñëw yàq suñu waa kër jubóowu leen fi temps bi toll noonu ak kaa bi ni mu demee man mii baayam aw ma fa xaar damu war a dem xool xale bi ñetti at waaw 18 décembre bii la am trois ans war sëñ Bamba te chaque année ma defal ko waaw envoyé ko lu jër lu jar gato waaw dem naa fa de mais naru ma woon dem nag ndax dama am ay kilifa ba may dem ñoom laa jiital ñuy samay kilifa waaw kon su demee noonu nag dama war a déglu samay kilifa ndax bu dul dara xañeel gi xeebeel gi xañ ma àq ak yelleef si sama doom ba yooyu xew kon bu ñu bu ñu toogee oo ma ne ma sa doom génn na àdduna dina la jaaxal surtout ki nga xamante ne moo toogoon ci kanamu commissaire muy maamu xale bi ne bu ma ko woowati na ma bàyyi ma nangul ko loolu depuis 2024 bii ma la wax si àjjuma ji mu woo ma ne ma sa doom génn na àdduna loolu est que xel yenu na ko oote googu mu mujjee def mënu ko woon njëkkee di ñu dimbali si xale bi xale bi yàlla dogal na ne yaayam mi ngi sëy par force la yàlla loolu la dogal mais nañ ma defal man sama doom di ko yombalal.